bis bawa waa safara ngay yëgub teral ñoon aajana ngi santu ndoleen laa ngi cey safar sëriñ bi man dama fi gisul fi sa nawle burawi lay burawi war ahmadul xadi nañu ko magal waay bégal mbégte mooy mbégum ku ne bis bi safet la bégal mbégte mooy mbégum ku nañu ko magal lii bégal mbégte mooy mbégum ku ne bis bi safet la nañu ko magal waay bégal mbégte bégal mbégte mooy mbégum ku ne bis sa fet la bégal mbégte mooy mbégum ku ne ajjana jaangi bégal mbégte mooy mbégum ku ne sant la bis bi bégal mbégte mooy mbégum ku ne neexu bis ba waa safara nga yëgub teral ah, ñoon ajjana ngi sant ndoleen laa safar sëriñ bi man dama fi gisul fii sa nawle sa feet la nañu ko magal waay bégal mbégte mooy mbégum ku ne bis bi sa feet la bégal mbégte mooy mbégum ku ne nañu ko magal lii bégal mbégte mooy mbégum ku ne bis bi sa feet la bégal mbégte mooy mbégum ku ne ajjana jaangi bégal mbégte mooy mbégum ku ne sant la bis bi bégal mbégte mooy mbégum ku ne bànneexu ya bis bawa waa safara nga yëgub teral ñoon aajana ngi santu ndoleen laa ngi cey safar sëriñ bi man dama fi gisul fi sa nawle burawi lay burawi war ahmadul xadi nañu ko magal waay bégal mbégte mooy mbégum ku bis bi safet la bégal mbégte mooy mbégum ku ne nañu ko magal lii bégal mbégte mooy mbégum ku bis bi safet la nañu ko magal waay bégal mbégte mooy mbégum set la bégal mbégte mooy mbégum ku ne nañu ko magal lii bégal mbégte mooy mbégum ku ne bis bi sa fet la bégal mbégte mooy mbégum ku ne ajjana jaangi bégal mbégte mooy mbégum ku sant la bis bi bégal mbégte mooy mbégum ku neexu bis ba safara nga yëgub teral ah, ñoon ajjana ngi sant ndoleen laa ngi cëy safar sëriñ bi man dama fi gisul fii sa bëggal waay bégal mbégte mooy mbégum ku ne bis bi sa fet la bégal mbégte mooy mbégum ku ne nañu ko magal lii bégal mbégte mooy mbégum ku ne bis bi sa fet la nañu ko magal waay bégal mbégte mooy mbégum ku ne bis bi sa fet la bégal mbégte mooy mbégum ku ne nañu ko magal lii bégal mbégte mooy mbégum ku ne bis bi sa fet la bégal mbégte mooy mbégum ku ne ajjana jaangi bégal mbégte tala la bis bi bis ba waa safara nga santun teral ñon aljana ngi santu ndolen la ngi cey safar serim bi man dama fi sul fi nañu ko magal bis bi sa fet la nañu ko magal bis bi sa fet la añu ko magal waay bégal mbégte mooy mbégum fet la bégal mbégte mooy mbégum ku ne nañu ko fet la bégal mbégte mooy mbégum ku ne ajjana jaangi bégal mbégte mooy mbégum ku ne sant la bis bi bégal sant ba waa safara nga yëgub ya teral ñoon aja nangi santun dolen langi cey safar sëriñ bi man dama fi gisul fi sa nawle nañu ko magal waay bégal rafet la megal mbégte moy megum ku ne nañu ko magal li megal mbégte mooy mbégum ku ne bis bi safet la bégal mbégte moy megum ku ne ajjana jaangi bégal moy megum mbégum neexu bis ba waa safara ngay yegup teral ñon ajjana ngi santu ndolen la ngi cey safar serim bi man dama fi gisul fi sa nawle nañu ko magal waay set la mek te mooy me kum kune Nanyu ko magal li mek te mooy me kum kune bis bis a fet la mek te mooy me kum kune Ajana jangi mek te mooy me kum kune Sante la bis bi bégal mek te mbégum me kum kune naa lii nii rek doy na exemple doy na wax yaakaar naa bu doon ay lamb la ma ne fu mu toll nii jeex na Cheikh Abdou roi des arènes fu mu toll nii gagné na combat bi ñu ngi sante bax ñepp nak jàppale na ñepp boole na ñëpp xam nañ ñëpp a njabootam lañ ñëpp dimbale leen ci maye boppam dimbale leen ngir lan bëgg mu bëgg président ak ànd gu mu ànd président te ñëpp xam ne ànd bu dëggu la du ànd bu ànd naxante du àndi caaxaan kon daal ñu ngi sant baax président Macky Sall di sant baax a baax. Cheikh Abdou baali njabootam mooy képp koo xamante ni bokk na ci président de la république kooku mooy njabootam Cheikh Abdou baali unité la woote booloo liggéey pour ndamal président loolu la woote. donc ñun ñëpp waa département bi nañu àndandoo te xam nañ am na kilifa gu mat kilifa muy Cheikh Abdou Bali vive Cheikh Abdou Bali vive Cheikh Abdou Bali vive Cheikh Abdou Bali. Euh, tey dañ koy surnommer la bâtisseur le lion waaw parce que tey ñii teg nekk sama wet rek mooy wane ni rek Cheikh Abdou baali gaynde la waaw xiru leen waaw kookoy Cheikh Abdou Bali tey waaw ñëw bi mu wane tey dafa wan ni président Macky sàll Euh, kóllëreem le xaritam la di ñew tay ci département bi mu nek journée de l'élevage muy honneur ci képp ko xamni éleveur nga bu dëkk Mbacké pratiquement ngay militant wu APR président nak lenn rek le sëñ bi japon ministre conseil Japon, ni warna ko mëna a donc défal ko spectacle bégal ko mobiliser dëkk bi tay Touba kenn desu fa ñëpp Cheikh Abdou Bali dugal na leen ci ay car indi leen fi pour teertu président Macky Sall ah tey nga gis xam nañ ni tey une valeur ajoutée ñëw na tey si APR mës nañu gis tay entrée spectaculaire un marabout bo xamni ci raw Cheikh Abdou Bali dox lu mat tay 1 km and ak jeunesse bi and ak femme yi ci poussière bi yëkëti loxom ñukoy koy donc lolu président de la république rek lokay wone ko kat li nga ma defal wax dëgg yalla dina la défal lu toll nonu kon nak xalé yaangi ni gaay yaangi ni kon Cheikh Abdou lañuy wax tay le coordinateur de la fête. mooy boroom feet wane na ko wane na ko ci Ila Touba bi wane na ko ci mitin bi mais tey dañoo ñëw rek yokk xorom ci ci cin li waaye billaay buñ ko préparé woon beneen affaire lay doon. bis bu lay sant yow murid ku wàlli sa tëggul bi la bis rek a cin kësal. sëriñ bi man dama fi gisul fii sa nawle du réew du réew yi Ahmadul Xadim. baneexu bis ba waa safara ngay yëgub teral. naa ngi sant ndoleen laa ngi cey safar sëriñ bi man dama fi gisul fi